daara ji li ko tax a jóg mooy di leeral diine yàlla ji waaye di ko faxas ak raxas ci lépp loo xamante ne bokk lépp loo xamante ne bokk lépp bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baad mbokk yi noo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di jullee ka sëlmal ci sunu sang bu tedd ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu loolu wéyee noo ngi leen di nuyu nuyu lislaam di leen wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa li nuy jiital mooy di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajurna fi musibatina واخلف لنا خيرا منها li ñuy jiital mooy di jaale sunu wayjur yi nga xamante ne bàyyi ko nañ fi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal leen te yërëm leen te xaari leen aljanna yal na yàlla leeral seen bàmmeel yal na yàlla yaatal seen bàmmeel yal na yàlla def seen bàmmeel muy jardin ci jardin aljanna yi yal na leen yàlla musal ci fitna yi bàmmeel amiin yal na leen yàlla xaare aljanna yi gën a kawe ñu dëkkaaleeg yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ala illiyin yal na yàlla wuutu leen seen gannaaw yal na yàlla barkeel seen njaboot fa ñu jëm yal leen gënal fi nga xamante ne fi la ñu jógee yal na wàcc liggéey doon seen noflaay nun ñu ñu wacc ginnaaw yàlla bu nu yàlla fitnaal seen ginnaaw waaye yàlla ñu yàlla saxal ci ak njub ba bañ leen di fekk njaboot yi nga xamante ne ñoom lañ bàyyi ginnaaw yàlla leen yàlla jox xolu muñ yàlla leen yàlla bindal tuyaaba ci musiba mi dal ci seen kaw waaye yàlla leen yàlla wuutal lu ko gën yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa am jigéen juñ daan ummu salama borom kërëm bu ñuy wax abu salama faatu te am ak déggoo gu rëy gu amoon ci seen diggante ñoom ñaar maanaam am cofeel gu rëy rëy gu nekkoon ci seen diggante ummu salama di soxna si borom kër gi dem bàyyi ko fi mu metti lool ci xolam yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ca jikko ju rafet ja ku daan am mbégte mu bokk kook yow waaye ku daan am safaan mu ñëw bokk yow mu ñëw seet si soxna si ngir jaale ko waaye bi mu ko jaale bi mu bi mu ñëwee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam daal koy teg ci aw yoon woo xamante ne dana wayafal li dal ci kawam mu ne ko dangay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajurni fi musibati waxluf li xayran minha mu ne loolu képp ku musiba dal sa kaw moo xam lu mel nii la moo xam beneen musiba mu mën a doom yonent ne boo ko waxee yàlla dana la bindal tuyaaba ci musiba muy dal sa kaw waaye dana la wuutal lu ko gën baat yooyu lu muy firi bala ñuy ñëw ci li li soxna si nettali lim ak lim yaakaaroon mooy nun day yàlla moo ñu fi indi moo ñu indi fii ci àdduna moo ñu bind moom lañ fi nekkal bu ñu fi jógee it ca moom lañuy ñuy dellu kon boobu nit ki delloo si na boppam ci yàlla ne ah man indi mu fi woon sama bopp ñi ma fi nekkali ñuy samay jege ñaale ñuy sa ñuy nit ñi indi wuñ fi seen bopp te ku ne bala yàlla yi indi tagul kenn moo xool waxtu wa ko neex mu indi la kon mooy xool waxtu wa ko neex mu jël ku ko neex kon foofu daa jël mbir yépp delloo ko ci yàlla ginnaaw gi nag bi nga waxee loolu nga gëm ko nga daal di ñaan yàlla ne yàlla maa ngi lay ñaan musiba mii nga xam ne moo dal ci sama kaw yàlla nag ma ci bindal tuyaaba waaye yàlla nag ma wuutal lu ko gën ndaxte nit ki bu musiba dalee ci kawam mu muñ yàlla da koy bindal tuyaaba bu xéewal bu ko yàlla indilee xéewal mu sant yàlla da koy bindal tuyaaba moo tax yonent yàlla bi ne woon man daal waaru naa ci mbiru jullit bu gëm yàlla mu ne mbiram yépp yiw la mu ne bu ko lu neex dalee mu sant yàlla def loolu muy yiw ñeel ko bu ko musiba dalee mu muñ yàlla def loolu muy yiw ñeel ko mu ne lii jullit rek moo ko am bu gëm yàlla kon yàlla ñu yàlla defal loolu sunu yaay umu salama moomu bi nga xamante ne bi wax na ko loolu ne ko boo waxee baat yooyu yàlla dana la bindal tuyaab dana la wutal musiba mu gën dal ci sa kaw salama wax wax de bi sant def naa ko abu salama di sama borom kër bi dëddu tollu na ma moom yaakaaruma ni mën na ma am nag ku ko gën moom waaye lan moo xew ba mu téngee ba foqi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ko denc comme sama nee na booba laa xam ne nag yonent alayhi salaatu wasalaam moom moo gën abu kon ñun ñëpp loolu la ñuy wax ci lépp li nga xamante ne tey moo daal ci suñu kaw yàlla ñuy ci yàlla bindal tuyaaba waaye yàlla ñu yàlla wuutal lu ko gën euh, suñu wayjur bi mu faatoo ci at yee weesu dafa am benn nit boo xam ne dafa ñëwoon kër ga jaale si dama koy faral di wax mbokk yi ma ne leen léeg-léeg bu mbir nee xis ci sa kaw mhm. yow dangay ngay perte contrôle bi maanaa dootoo am sago bi nga war a am waaye nit ki ñëw di la jaale loolu dafa am solo daf lay delloosi ndaxte booba àll lañu fekk ci jamono corona bi mënuñu dem mënuñu dikk hmm. ñu boole ñaari metit mooy def na ko sunu gannaaw te mënuñoo dem maanaam nga xam ne dëddu na la te fekke woo ko hmm. métit yooyu nekk ci yow di la travailler mais mbokk mi bi mu ñëwee dafa am ay baat yu mu wax yoo xamante ne moo ma faj lan bi mu ñëwee ñu nettali ko ne ko ah ñu wax ko li ñuy yëg ak métit bi nga xamante ne moom la ñuy teel ci jamono yii biñ ko nettalee mu dégluñu ba pare mu daan waaw métitlu gi nga toog di métitlu ak toog gi nga toog di wànguraay loolu ndax ki fi jógee loolu dana ko jariñ dara dañ ko déedéet mu mel ne loolu maa ngi koy doog a dégg maa ngi koy doog a bàyyi xel dañ ko déedéet mu ñaareel bi toog gi nga toog di métitlu ak di wañaaru ndax dana soppi ci dogalu sunu borom bi dara ki dem dellu si waat ma ko dedet mune waw kon metit lu gogou ak wañaru gogou nga nek ak tok gogou nga tok rek di xalat non est ce que doko soppi diko ñaanal ndax ñaan yi dana ko jari mm-hmm. ma ko waaw man boba la wir boba la waji delo ci si mu mujji metit wi nga xamantene mom la doon yëg dafa mujji soppeku banex banex bi moy lan moy sa yu ma sama xel deme ci mom rek ma commencé diko ñaanal legi ñaanal gi ma koy ñaanal ma fàttaliku yaronte yàlla Muhammad ali sallallahu alayhi wasallam wax gi mu wax ni doomu aadama bu dëddoo génn aduna jeufam yépp day dog bam dess des ñett mooy sarax bo xamne ne buy wéy la bu mu fi bàyyi gasol na teen wala defon na lo xamne nit ñi ñu ngi ciy jariñu gannaaw wala tabaxoon na jàkka wala ainsi de suite lu mu defal ñaareel bi mooy bàyyi la fi xam-xam bu nit ñi di jariñoo ñetteel bi mooy bàyyi la doom yu baax di ñaan léegi man bu ma koy ñaanal dama naan ah kon dafa mel ne soxna si mi ngi ci at jëf yàlla di que ñaanu doom loolu la wuteeg ñaanu keneen dafa mel ñaan boobu ci jëfi wayjur wi la bokk ci jëfam la bokk dafa mel ne wayjur wi moo nekk ci àdduna di dund di def lu baax te nit bu xasee ba àdduna la def lu bon comme que la def lu baax moom ci jëmi éliminé na na def lu bon ci ki way juri faatu yàlla def lu bon ci moom jeex na la def lu bon waaye mën naa def lu baax loolu muy bunt bu yàlla ubbil way jur boo xam ne na àdduna bàyyi doom ju baax ñu ñaanal léegi nga xamante ne bu ko bu nit di doom ji ñaanal way day sama waajur kat fa mu nekk maa ngi koy yónnee ay kado yoo xamante ne day yëkkati ay darajaam day far ay bàkkaaram day dolli ay tuyaaba hmm. loolu bu ko nit di def daf bànneex la mujj mbir mi di soppeeku ci moom ndaxte àdduna way waajur ak lu mu baax baax lu mu la bëgg-bëgg loo ko bëgg-bëgg bu ngeen saxoon fii ci àdduna continuer di dem bis dana ñëw nga bëgg mu jóge fi te du dem ndaxte dundu doomu aadama dafa am fu mu yem kattanam dafa am fu mu yem ak wéram dafa am fu mu yem dana dem ba yow bu boobaa yëkkati ak teg dana la doy sëkk ab liggéey dootoo mën a def leneen waaye ci yërmande yàlla moom moo def doomu aadama am foo xamante ne fa la dund ak yem mu génn ci coono àdduna bi ngir dem noppalu ji moo tax ñu naan diw noppalu na ndax dund laqad laqad xalaqna al insana fii kabat la yàlla wax doomu aadama yàlla da ko bind ci mettit muy souffrir fi ci aduna souffrance bi daf fay bari mais nit ku bax bu xasse ba ak roowam rot cionam jeex na kon sunu wayjur yoyu muy soxna si muy sunu wayjur wo fi bàyyi ko tey yal na leen borom bi tabaraka wa taala yokk yërmande yalla na leen yàlla subhanahu wa taala yokk jéggal yalla yàlla yëkati seen daraja ci aljanna yi gën a kawe oustaz en fait damay jël kàddu rek